kii mooy abu bakar muhammad ibnu abdulbaaqi ibnu muhammad al bazaar al ansaari moom nee na mi ngi dëkkoon ci dëkk boo xam ni soriwul màkka dara benn bés xiif ak jaaxle tax na ko génn di wër li mu lekk waaye muy dox ba mu yàgg rekk mu dajeek am morso boo xam ni ñu ngi ko laxas takk ci geneen buum gu xonq mu waaxu jëm ca morso ba yëkkati ko yóbbu këram waaye ba mu ko tekkee mu fekk fa benn caqub or boo xam ni bu cher la lol ci alal waye mu genn gis gor go xamni mi ngi yor am mbuus gor ga di wax ni mbuus mi day juromi junneng ci dana ko jox kep ko xamni forna sama cakbi, bi tan nanguma ko abou bakkar khalat ni caq bi teema ko delloo gi jël alal ji ndax man xiif lol lool soxla na ko lol xelam ni ko waw defal lolu, mu wo gor gi yobbu këram laaj ko gor gi wax ko gay bi ak màndarga yi muus mi ak lañ ko takke woon ak lépp ba màndarga yi mat abu bakar yëkkate caq ba jox góor ga góor ga yëkkate juróomi junni ya jox abu bakar abu bakar mii ni ko alal jii nag dama koy def bor sama digganteeg yow danaa la ko fay ndax sama warugar mooy su ma foree alal ju ma moomut ma delloo ko borom kon dama lay fay góor gi ne ko dama la ko may te yàlla tax abu bakar ne ko déedéet dama la koy jox dama la koy fay su ma amee góor gi ne ko maa ko may te yàlla tax góor ga dem Aboubacar nee na mu jël alal ja jël ci gaal di wuti lu mu lekk waaye nag gaal ga toj nit ña fa nekkoon ñépp dee seen alal seey ba mu des moom mu ngi jàppoon ci bant boo xam ni ma nga dammee woon ca gaal ga bant ba di ko sànni ba sànni ko ca ab il boo xam ne ay nitang fa mu dugg ca jenn jàkka julli fa ñaari ràkka yëkkati fa ab téereb alquran di jàng alquran ba ko waa dëkk ba déggee ñu ñew ci mom am ciofel lol ci njàng ma dadi di sàkku ci mom mu tok fa di len jangal alquranul karim mom mu ni gannaaw man yuruma soxna ta man dongula na d'accord tok fi di len jangal alquran di len jangal sen diine xamal len li yalla bëgg ak yonentam alayhi salatu wassalam wa dekk ba tok fa jël seni dom jox ko mu di len jangal alquranul karim ak li yalla bëgg ak yonentam alayhi salatu wassalam benn bés waa dëkk ba def délégation ñëw ci moom ni ko am na soxna su fi nekk soo xam ne jirim la ñu bëggoon la ko may nga def ko soxna moom Aboubacar nee na mu gàntal waaye nag waa dëkk ba ne ko déedéet faw ñu may la ko ndax toogaay bi gën a am solo mu d'accord ñu génnal ko soxna sa mu xool waaye ba mu ne jàkk soxna sa mu seen caq ba mu foroon ca baatu ndaw sa léegi nag ndaw si yitteelatu ko waaye nag caq baa ko yitteel muy xool caq bi xool bu yàgg lool bu metti sax waa dëkk ba ni ko waaw yow ndax soxna si ngay xool wala caq bi moom mu nettali leen caq bi na mu demee ak na mu ko foree ak na mu ko delloowaat waa dëkk ba yëpp yuuxu ni allahu akbar allahu akbar mu ni leen waaw lu xew waa dëkk ba ni ko góor gi nga delloo woon caq bi kat mooy baayu ndaw sii ndax ba mu dellusee ma ngay wax di ka caqam bi dey gis na ci moom màndargay baax ak ragal yàlla ba mu daan ñaan lu bari lool ne yàlla na ko yàlla booleek yow ba mu may la doomam ji nga yar ko tey jii nag ñaan gi nangu na loolu moo tax ñuy kàbbar di wax allahu akbar abubakar nee na mu toog dund ak soxna si dund gu neex lool ba yàlla wërsëgal ko ñaari doom te it bàyyi soxna si bàyyiloon na ko fi alal soxna si jël alal ji yépp jox boroom këram kon nag yéen samay mbokki jullit yàlla nee na man amila saalihan min dakarin aw untha wa huwa muminun fala nuxiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi axsani maa kaanu yacmaluun yàlla nee na képp ku jëf-jëf ju baax ngay góor mbaa ngay jigéen te boobakat yaa nga gëm yàlla yàlla nee na danañu ko defal dund gu neex lool ci àdduna ba ba muy faatu waaye daañu ko fay ëllëg yowmal qiyaam pay gu yaatu lool ngir jëf ju rafet ji ñu daan jëf ci àdduna kon nag mbokk yi kii day alal ju lew ji nga xam ni bëggut koo lekk te moomut ko mu delloo ko boromam moo tax mu dund dund gu neex lool ak soxnaam su baax lool waaye nag lekk alal ju dana tax dit ki su yëkkatee loxoom di ñaan yàlla yàlla bañ koo nangul tey dana tax mu dund dund gu metti lool ndax yonent bi alayhi nee na kii di lekk alal ju lewut su yëkkatee loxoom di ñaan yàlla yàlla du ko nangul ak ñaanam